asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 30 juin 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy dooreete ko tey yëglekaay ba nag tey ba mu xëyee géant di bawol ba daal la xëy tey fësal ci xëtam wu njëkk tafaa nag moom mu nga samp tànk ya di fecc yëglekaay bi nag ñëw na ci moom ay juróomi arme la tànn yoo xam ne daal moom la tafaatin boole yoor war a tax yoo xam ne daal jàpp na ne yii moom mooy tax ëllëg mu nekk roi des arènes ba ca njëkk yëglekaay ba jàpp na ne mbari la moo xam ne daal ak dëgëraayam foo ko takk weesu na ko dëgër këng këng moom la tafaatin def ñu ne ko ak ban mu ne wàllum xeex tamit day da koo mokkal ba mu saf sap maanaam mbër moo xam xeex moom ci làmb moom yombul ndax man nga mu ko man beneen ba ca des yëglikaay bi wax ko mooy wallum technique maanaam xam-xam itam lu mu am la ci wàllum bëre expérimenté tamit def na ko mystique tamit jël na ko ca bool ko ca waram daal wàllum xarfa fuufa nekk na ay mbir yoo xam ne daal ay mbiri tafaatin la ne na moo tax mu war a nekk nag ëllëg roi des arènes juróom yooyu tey moom la ñu sunu làmb andil ci moom ña nga xam ne nii moom bëri na ak ñoom muy ki nga xam ne moo di ki nga xam ne moo di Elton jàppal moom ma nga xam ne mooy moom mooy Elton tamit digganteem ak Pakala yëglikaay bi ñëw na ci nee na nag revanche bi ndax waruta amaat keneen koo xam ne nii moom aw yoonam mu nga koy wane moo tax yëglikaay bi xëy tey di laaj kan moo koy taxawloo muy jam téeri bu kayaar jam daal bu bëggee dégg-dëgg moom la ko commencé ca Vandam ak ka nga xam ne moo di Mbaye Guèye Junior tonnerre ba ci jet li yoon wa mu jaar daal bala na ko ba mu set wecc maanaam ku ko féete kanam moom faxas na la jéggi la jàll dem aw yoonam keneen koo xam ne ni moom ku mu faxas moom lay wër muy gambien moo tax nag moom jàpp na ne daal fi mu nekk nii moom ka mu bëgg a defanteel du kenn ku dul ne kuréel ne na ko pare naa ngir boo bëggee ñu defante ba mu saf-sap moom Gambien moo xëy tey wax lu mel noonu ci sunu làmb ba tey bu nu continuer ci yëglekaay bi keneen koo xam ne ni moom carrière daa mel ni neexoon na de waaye la olof day wax rek xalam ngay dem bay neex buum nga dagg mooy Bruce Lee moo xam ne daal ay mbiram fi mu nekk nii moom takk rip rip suuf la def ak jafe ya nga xam ne nii am na ko ci fi nga xam ne moom la mujj ci ay sorties yoo xam ne mujj na ko def moom karaté kaaw écrit face ba na ko yëglekaay bi di sunu làmb tey wane beneen xale boo xam ne ni moom daa mel ni daal ah mu ngi bëgg a wane taxawaayam ci écrit Ndakaaru muy anti yëglikaay bi xëy na tey andil ñu ko waaye am na keneen koo xam ne nii moom la mu def président école la waaye tamit yemu ca de moom góor gi siis moo ji dafa nga xam ne mooy kaay baax léegi nag moom ab promoteur daal la ñëw doon ci làmb ji ndax nag leen la mu bëgg moom ñi nga xam ne ñooy mbër yi ne ci écrit école yi bëgg na leen di tëgg daal moom góor gi siis loolu la def moo tax nag taxawal na benn combat boo xam ne daal mooy Orton ak Albury combat ba daal góor gi siis taxawal na ko yëglikaay bi di sunu tey ñëw na ci moom keneen koo xam ne ni moom ba tey yëglikaay bi ñëwaat na ci moom muy jët li ak loo xam ne moom fi mu nekk ni obligé na ko maanaam daal jéem a tëbaat naawaat ngir nag wanewaat boppam ginnaaw la mu jóge da caa jóge mu dib defet yëglikaay bee xëy tey ñëw andil ñu lu mel ni ki noonu moom ma nga xam ne moo di jët li buñ fa jógee nag moom dañuy dem fa nga xam ne nii moom moo di ca sunu làmb mu mel ni ki nag wala boog dañuy jóge sunu làmb dem source a source a moom lan fa xëy fekk mooy diggante Gris Bordeaux ak ka nga xam ne moo di Balla Gaye numéro 2 mu mel ni ki nag yëglikaay ba xamal nañu ne daal Gaston Mbengue moom loo ci mën a dégg daa mel ni combat ba nag taxawal na ko de ndax déggoo dox na ci digganteem ak ñaari kaaya moo xam waa Fass la wala waa Géejawaay ña yore Balla Gaye numéro 2 source a tey moo xëy wax nu lu mel ni kii noonu moom Balla Gaye numéro 2 nag dañ fay jógee dem record fekki ko fa jàppale kaay bi ca gëstoob Abou Ndour daal xamal nañu day 2010 ba 2013 gay Gaye numéro 2 at yooyu wala boog ñeenti at yoo xam ne daal Balla teglante na ko wane loo xam ne nii lu tàng jëri jëri jëri la digganteem ak Modou Lo Tyson Yékini ba ci moo di Tafa Gueye mu mel ni ki daal yëglikaay bi ñëw na ci tey Balla Gaye numéro 2 boo xam ne daal loo ci mën a dégg moom at yooyu lam ca wane dafa doy waar lool lool rakk ja moom di Sa Thiès yëglikaay ba ñëw na ci moom ci ay yoo xam ne ñu ngi koy wax moo xam Yékini Junior la moo xam Garga Mbossé la wala Reug Reug mu mel ni ki nag ku nekk daal borom xam-xam yi joxe nañ ca seeni xalaat Yékini moo ma nag moom yëglikaay bi ñëw na ci moom jàppal moom itam day tournant bu décisif daal moo koy xaar ndax fi mu nekk nii la koy xaar mooy daal jàppal Sa Thiès a nga caw yoonam rëg-rëg ak yeneen mbër yoo xam ne ñu nga ca moo xam garga mboose la yëglikaay baa xëy ñëw wax nu ko moom record keneen koo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom tey muy góor a soog ak onze victoire yi nga xam ne am na ko ci lamb ak trois défaites góor a nag moom ñamu xëy def ye leer na ne na kii di forsa bu faas daal góor ne na ko tëkkal soo fit ñëw ñu bëre wala kan Malick Ñang bu yoof itam góor a boole na ko ca ak amaneex bu tëngeej ñii daal la góor a tey xëy sëmpal dën ca record ne na ñu ñëw ñu defan tey waaye loo ci mën a dégg moom la ma waxoon démb rek cin daal daa mel ni su naree neex su baxee dafay xeeñ ndax nag ay combat ngi taxaw de moo xam yu mag la wala yu ndaw wala boog ñu ngay dox muy déggoo kon daal li des moom comme léegi nag maanaam couvre-feu ba dañ na ak état d'urgence ba xanaa corona bi léegi moo ci war a topp moom itam dañ définitivement ndax sunu làmb ji continuer wala sax réew mi continuer di mel nan ko daan xaaree wala àddina bi. ñoo nekk ak li nga xam ne ni war na ko permettre tey Tapha Tine mu nekk roi des arènes. waaw mu mel ni qualité yi juróom la tànn ah, bokk na si dëgër wax dëgër nag sport bi ñuy def moom muy làmb defe naa ne ku koy def faw nga dëgër dëgër nag lu koy maye mooy entraînement parce que dëgër ci yaram moom nit ku bàyyi sa yaram. mën na mel ne pataas buñ baxal bu la neexee mais bu fekkente ne nag yow da nga bëgg sa yaram dëgër day am looy def pour sa yaram dëgër ndax am na loo xam ne kenn du ko may nit nit a koy wutal boppam ginnaaw bu la yàlla sàkkee joxalam xelak yooyu ba pare maanaam entraîné ba dëgër wàllum xeex ba tey loolu lépp ba tey lu di wutal boppam la waaw donte ku la dóor nga fay waaye xeexu làmb des koy jàng yaa yi dégg technicité tamit ci bëree des koy jàng maanaam ku la song tey ci mbedd bi di nga bëree ak moom waaye technique bi daan bër dañ koy jàng yooyu yëpp bu ko boolee nekk am expérience boole ci tamit wàllum ñaan comme ni ko yëglikaay bi ñëwee ci moom muy juróomi arme yoo xam ne daal yaakaar naa ne moom tey la dajale yoo xam ne war na ko permettre ëllëg mu nekk roi des yaakaar naa itam tafaatin moom ëllëg bu nekkee roi des pour man du bett kenn ko xam làmb parce que itam yaakaar naa ne loolu yëglikaay bi wax yëpp daje na ci moom wax dëgg yàlla mbër kaamil la macha Babacar Mbër Kamil kenn werante ko ndax am na lu mu fi jot a prouvé dañuy dem si yeneen affiche yoo xam ne tey suñu lamb andi na ko mu mel ni diggante ki nga xam ne mooy Elton ak Pakala nee na revanche boo xam ne la tey war na taxaw. waaw revanche boo xam ne moom il est parce que ñoom ñaar defe naa ne masoon nañoo bëre mu am nu mu demee kon yaakaar naa tey seen combat wares na koo mën a tëggaat muy Elton muy Pakal te actuellement ñoom ñaar kenn ci amul adversaire kon defe naa promoteur yi tamit nañ bàyyi ci combat boobu xel parce que combat géant bi nga xam ne bu taxawee war na mën a neex trop muy Elton ak Pakal la. waaw beneen combat boo xam ne Babacar eh, ñu ngi koy wax muy di ne na ñëw ñu bëre te ko Réel nag nekk na mbër boo xam ne jafe na amal combat Babacar waaw jafe na de parce que xale la bu mën a bëree moom nee kuréel nekk mbër mi nga xam ne nii moom mooy lamba Gambien itam moom daa mel ne fi nekk nii ku bëgg fu mu fanaan la <laughs> waaw daal ku ko ku ko tijjil mu dugg moom daa mel ne moom waaw waaw. Euh, soxla na ko tamit euh, moom Gambien parce que fii ci Sénégal xaw na fee gëjee lu bëri Babacar ñu dem ci ki nga xam ne nag mooy Bruce li ñu tuddee ko woon le karatéka de Fass Bruce Lee nag euh, nekkoon fi benn champion suñu lamb mu ñëwaat ci carrière am ñi nga xam ne fi mu toll nii nag wàcc na bu baax. waaw wàcc na parce que Bruce Lee boo xoolee combat yi mujjee yëpp boo xoolee ay contre performance la maanaam daf ko ñàkk te defe naa ne Bruce Lee bokkoon na ci bi muy débuté carrière am. ak ndam yi mu tegalante ak façon bëri yi mu doon bëri ak jël yi mu doon daan yaakaar naa ne ñu ngi ko doon xaar tey ci làmb fii ñoom Balla gay nekk fii ñoom Modou loo nekk ak ñoom Tapha Tine foofu lañ doon xaar bi mais malheureusement ah li mu mujjee du nekkul loo xam ne daal bokk nag fi ñu ko doon xaar loolu nag li ñu ci mën a jàngate mooy euh, nit kii ak looy def ak loo ko man man man man man la mu soxla ci ay loo war di def da koy def la muy bañ ci lu ñuy tere da nga koy bàyyi mais su fekkente ne nag loola moom bëggoo jéemoo ko séparer ëllëg itam euh, loolool du mën a sotti ndax nag am nit ki mënul di yeewu fajar di rey boppam di daj ay coono Aïssa yow tamit ngay xam nga nga koy gérer ni mu la neexee ba pare ngeen bëgg tolloo loolu manta ne c'est impossible bis li ñu mujj a gis si moom bu ko maam ak Ahmed dem surtout keroog bi li bi ñëw xam nga ne kii bu dee ci wàllum physique entraîné def li mu war a def ci yaramam non loolu nekkul woon ci yaramam bis bu parce que naxante baaxul te am na loo xam ne nag loo mën mën bëri loo bëri bari xam-xam il faut nga entraîné ba am coffre bu dëgër yor doole pour say prouesse technique nga amee woon nga mën am na ay techniques yoo xam ne ne ci biir biir bëri Aïssa doolee koy def bëree koy def te boo koy def te ànduloo ak entraînement doo ko mën a def parce que da ngay sax dute ba pare da ngay lan yéex boo waree jàpp micro bi tëb dóor aysa balaa ngay dem aysa dina gis loxo bi balaa yegg si ci kanamam te loolu defe naa ne mënta sotte ak mënta ànd ak daan quoi waaw su lamb Babacar ba tey dafa jóge foofu dem seeti mbër boo xam ne nag euh, macha allah fan yi saison yi sax laay wax mi ngi ci bu baax mu nekk nga xam ne nii mooy euh, waaw moom itam vraiment daal fi mu nekk nii ah vraiment mu ngi wane boppam ndax nag jamteer yaakaar naa ne ah su ma jumulee daal ba mu amee ay difficulté ci digganteem ak euh, Gabar Singh ba mu ci jógee ba tey wala lu ko jiitu mu ngi wane boppam ndax boo xoolee moo xam Mbaye Guèye Junior la moo xam Jordan moo xam euh, ki nga xam ne moom mooy tonnerre ba ci jet li mu mujjee yaa ngi dégg ba moom ak jet li defe naa keroog ku ñu arène nationale sa xol bég na ndax bëre bu metti te yaakaar na nekk na mbër moo xam ne ah fi ne nii ay affaire la de naqari na ay bagage de moom jam tiiri ku jafee bëreel la ay sax wallaay ñu jógee suñu lambaar ko fa dem fële ca suuf su a su a tey ñu ñu xamal ni Gaston Mbengue mi ngi dox diggante gas euh, diggante Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux nee na euh, avance euh, waxtaan bi avancé na torop torop ci combat boobu. maanaam daal déggoo daa mel ni am na ci. waaw loolu nag bu amee dina neex parce que li tax mu nar a neex mooy comme li ga li Gris doon wax rek dañ ko daa bëgg ñu constate ko. ndax mel ni kon Gaston Mbengue bëgg nañu constate ko te xam naa diggante Gris ak Balla moom li ma la mën a yëgal mooy buy taxaw. mën naa nooy nii waaye bis bu ñu la nee taxaw na ba waxante jot ak di jëflante non ma mënta mënta mënta sedd ci lu baax lay doon roq bu sedd du fa am parce que seen premier combat yaakaar naa kera fan yooyu dafa naa ne réew mi yëngu woon na ci ñoom ñaar parce que kii Gris ku ko xam-xam ne dafa am kàllaama maa daa mën a wax macha allah te Balla itam ku ko xam-xam ne moom rek ah. <laughs> signature de Balla ak signature contrat yi ca jëm kay moom kenn du ci jiitu mais nekk na combat boo xam ne daal ñu ngi ñaan suñu papa Gaston Mbengue daal loolu neel na ko réussir totalement ba nga xam ne ni daal parce que lii tamit lamb yi soxla na ko quoi waaw. dañuy jóge foofu dem euh, fële ca record record tey ñëw ci Balla Gaye diggante 2010 ak 2013 euh, mu nekk année euh, Babacar ci la wane di bëri bëri bëri ci xar diggante parce que ñeent ñooñu rek dañu doy ci carrière làmb ci benn espace bu gàtt muy Modou loo yaakaar naa ne lu la waay mën a waxati waxati képp ku lekk avance bu Modou Lo da nga xam ne lekk nga avance soo ko waxee ak soo ko waxul parce que lu tax mooy jàmbaar la te am na jom te bëgg na lu muy def Balla gay de seq ak moom bés 2010 bareek moom ñu def fu la def fayda yàlla may Balla ndam ñu foog ne fa lay yem mu ñëw indi jël Mohamed Ndao Tyson yaa ngi dégg daan ko mu nekk quelque koo xam ne tamit benn mbër la bi nga xam ne tey révolutionné lamb moom mooy ki ko def moom Mohamed Ndao Tyson ci côté yu baree baree bëri ñu ne déet na waay nga jël Yaxya Joob Yékini boo xam ne gars yi dama naan dañ ko doon wóoy maanaam di tànn ceeb bi di ko wër nii non kenn ñemewu kon ko laal nga ñëw laal ko bëri ak moom façon bëri ba nga bëri ak moom daan ko Tafa Gueye ñu ne déet waay nga teg ko ci koo xam ne xam-xamu bëri maanaam bu buñ new tey bu ñu doon tànn cinq yi ko ëppale dina bokk si juróom yooyu Balla daan ko kon defe naa ñooñu boo leen daanee ci benn ngemb yaakaar naa ne moo lay wan ne kon daal at yooyu Balla wane na ci loo xam ne tamit moo tax ñu ñu baree bari jàpp ne bokk ci mbir yi dàq bëre ci làmb réew mi fi nekk nii dañuy jógee ci Balla dem seeti rakam suñu làmb tamit ñëw nga xam ne nag xam-xam màcc na ci wàllu làmb ñoom nag ñu daal di liste li nga xam ne ñooy ay adversaire am ñoom Reug Reug Garga Mbossé ba ci ki nga xam ne ni moo yëkki ci yëkki ni ci ñoom waaw waaw waa ba tey ci record ah ah waaw loolu da ñii daal ñooy ñii moom Sa Thiès mënu faa ñàkk adversaire diggante ma gi gini senior lamb la diggante mag rëg-rëg itam bu ko nangoo lamb la diggante mag garga mboos nag dafa gën a tee neex waaw loolu doo ci mën a dégg daal ñett ñi moom xalaat naa ne ba la faa génn dana fa lekk bu avance laa foog waaw waaw war naa mën a nekk ba tey parce que suñu lam tamit euh, record ni ba tamit euh, ñëw na ci Yékini Junior parce Tafatine daan ko nee nag eh, tournant bi moom bu ko rëccee lu bëri dina ko rëcc ci carrière waaw parce que nag il est boo xoolee bi mu mujj a bëri 2018 Tafatine moo ko daan Leewtoo ko tëggoon kon yaakaar naa tey adversaire yi ñu koy waxal muy Garga muy Rëg-Rëg muy muy Sa naa moom itam foofu war na fa mën a am adversaire pour mën a bëree parce que tamit nag mbër moom ak lu mën a xew bëree il faut ngay bëree quoi mais boo bëreetul des fois dafay am lu bëri lu muy dina. di nga perte sa ay repère yu bare bare bare kon defe naa Yékini Junior tamit yaakaar na lool xelam war na cee nàcc bu baax a baax kani daal jamono ji moom adversaire yooyu ñu koy wax war a am benn a nag ñëw na tey si ay adversaire am di mel ni Forza Malick Niang ba ci ama neex waaw ñooñu mu lim ñëpp day wax dëgg war na mën a bëri ak ñoom ah, wax dëgg yàlla parce moom xale la bi nga xam ne yàggul ci làmb ji mais mu ngi wane boppam ndax 11 victoire 3 défaite palmarès la bu raisonnable yaa ngi dégg nekk na mbir moo xam ne daal lu jar a bàyyi xel la kon defe naa forsa war na mën a gëstu góor a soog Malick Niang noonu ama neex noonu quoi waaw. waaw ah, Babacar li lañ leen lañ tey ci li nga xam ne mooy jàngat bi ñu leen di jaajëfal lu baax di leen gërëm di gërëm internet yi nga xam ne yëpp ñooy suivre Leewtoo TV ñoom Cheikh Bass ak ñeneen ñu nekk ci commentaire yi gis nañ leen chaque jour macha allah ñu ngi ci ñëw di encourager équipe Leewtoo ñu leen ciy jaajëfal bu baax. waaw tey ku la solo robe bi. sama bopp ak sama tailleur Alassane ci marché HLM. am na solo man tamit muy nuyu sama boy nekk Petersen rek jib seen tey mu ma jox mayo bu rafet bi yàgg maa sax ma daa rafet yow sax ne nga ma dafa rafet kon jib ak waa Petersen ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy Babacar bu yi nekk Petersen yëpp ñoom Cheikh Lambaay ñoom ñëpp bëggee naa leen ah parce que ah ñoom ñooy samay partenaire parce que ñoomay solo lu bare bari mais comme ni nga ko waxee ñuy commentaire Abdou Ndiaye ah ak gaa yëpp instant ñoom ñëpp daal ñu leen di nuyu Kanté bu Siteu moom tamit ñu ngi koy bëggee tuuti Yaay Sarr ñoom Khadiros Ndiaye fépp ci waay ma ne di ñu bëggee di ñu safo waa Arabie Saoudite du leen fàtte di nuyu waa Liberté 4 dëkku yàgg maar ba ah, maa ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax a baax Liberté 4 yëpp ay sa yow tam fi nga dëkk ñu tuddati Scat Urbam maa ngi nuyu waa Scat Urbam yëpp tamit di nuyu waa parcelle dëkku Ndeye Coumba Fall di nuyu sama waa dëkk waa Dakar Plateau man foofu laa dëkk tamit falaay fal falaay yeewoo di ñaan Sénégal daal yàlla fi yàlla def jàmm corona bi comme ni ñu dundee ko fi état d'urgence bi yàlla na fi corona bi jaaree jeex waaye li président wax nañ si bàyyi xel rek ñu gën a tamit respecté mesures yi rek daal waaw ba subaak jàmm incha